sëñ Moussa ba mu ba mu wootee wooteem bu njëkk ci bis bii te wax ni sëñ bi moo ko dajale loo mbooloom daam nu mu ko doon def mooy fee ci biir barab sëñ Tuubaa bi la wut ñeenti kaang yoo xamante ni toll na ku ne ci ab koñ ba xat ma ko mu wutaat fukk ak ñaar yoo xam ci mihrab bi la ñuy nekk jàng fukki kaamil ak ñaar wutaat fukk ak ñaar yoo xam da leen tasaari ci biir jumaa ji ku ne jàng fukki kaamil ak ñaar muy ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett koñu jumaa ji jës bu mu Mawaahibu Muqaddimaat Mimiya ñeneen ñi mënul loolu mun leen lu waay man ci lu baax na ca nekk salaatu na bi istixfaar lu waay xam rek na ca nekk waaye bëggul kenn toog loxoy kese ba set loolu la waxoon ne nañ ko fanaane ni bu boobaa borom ñi dara nañ dimbali ñu néew doole borom xam yi nañ laa biire ñu xamul bokk yi nañu dundal seenu bokk dox loolee nag moom la yàlla dogal at yii yëpp ñu di ko defaat noonee mu ko daan defee loolu suñu borom defal nañu tawféex dimbali nañ kon li ñuy wax lu weesu la lu weesu nag bu buñ koy wax dañoo bëgg ñi fekke tey xam fu ñu teg seen tànk gën a yokk seen yitte seen diggante ak seen gën seen borom gën a farlu yàlla gën a baax ci démb la mu yoroon jox ko waa démb rek toog ba léegi suñu borom dese na lu mu joxagut kenn moo tax nu bëgg nu fa feddiliwaat suñu laxasaay laxasaayuwaat la mag ña doon wut muy ngërëmal yàlla nu continuer di ko wut cër yooyee mag ñu amoon ñu bàyyi kook ñoom te wut yeneen cër ndax suñu borom jeexalul moo tax ñu doon dundalaat jataay bi suñu àggee ci njàngum alxuraan bi ba noppi suñu xaat di jaxate mi moo ko doon taxaw noonu lañ ko doon defee sëriñ Moustapha mii li moom sëñ Mahmadan lañu lañu jàpp nun mu représenté fi sëñ Massamba ndax moom la ko sëñ Modou Sa doon taxawuloo man jàng xat su paree suñ Modou bind ab discours fàttali nit ñi yàlla suñu borom fàttali leen ndigali suñu borom yi fàttali leen sëñ Tuubaa mi ñu dawoon wut si ko nu mu bëgg nu def ko fàttali itam naal yi fi sëñ bi bàyyi woon nuñ ci war a taxawee loolu rek mooy kii loolu mooy undu jataay bii rek bëgg nit ñi xam ni guddi mënoo caa dem te ak ca jaaroo ci bëccëg ba waaye lii ñuy def ci bëccëg bi lépp guddi gi rek lañ soxla guddi la gu rëy goo xamante ni mat naa bàyyi xel te sëñ Moussa daa waxoon di sëñ Tuubaa keroog ba mu jógee njaareem di ñëw ñu ko gunge woon saa yu bis bi del siwaatee fii la ñuy fanaan si ak moom ne ku fi fanaan ak ñoom suñu borom jéggal la say bàkkaar nit nag lu ko naqari ci boppam bu ëllëgee bàkkaar ak ko teg kon boo xamee fuñ koy fare jar na sol dàlli weñ di dox ba dàlli ya xar ngir nga àgg fañ koy defe rawatina nag jamono nu toll noonu nga xamante ni saa yoo génnee gis loo bëgguloon a gis te sañoo koo bañ saa yoo génnee dañ la wax looloo waru doon a wax te sañoo koo bañ dañ la def looloo xamante ni sañoo koo bañ te dara neexu la ci te yépp yuy waral merum suñu borom rekk lay doon waaye nag nu am loo xamante ne nii kenn amu ko noonu rekk ko moom mooy ar rahmatul muhdaat yërmaane jii nga xamante ne ni bunt la bu nu suñu borom xéewale ubbil na ko muy Sëñ Tuubaa nu war koo jariñoo loolu rek moo doon kàddu yi nga xamante ne nii bëgg nañ ko yëpp bu ko defee dañuy jox sëriñ Moustapha moom sëñ Mahmadan Jobbe moom sëñ Masamba mu defal nu xatmu Qur'an bi su ñu barkeeloo ko ca jéego yooyu nga xamante ne nii mag ñi daan nañ ko def te ca yaakaar nag loolee ci mag ñi amoon nu am ci lu kawe suñu njot suñ paree jox sëriñ Xaadi Jaxate discours yi nga xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Moustapha daana ko bind di ko fàttali jaboot gi moom itam mu leen ci am njaboot ba ku fi jóge da xam lu wér loo xamante ni da nga ko yóbbaale ba bu ëllëgee itam saa yoo tarxiisee da nga xam ni tarxiis koy dox la ñeel waaye du ñu la sant dama bëgg rek taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp xam fu ñu teg seen tànk te bañ a topp naq saxar nag ji jëme ndax Sëriñ Tuubaa mii ci mbedd mi ñuy waxtaane bokk ak mii ci téere yi mii ci téere yi lañ soxla moo niy jariñ tey moo niy jariñ bu ëllëgee loolu rek moo doon jataay bi bismillahi rahmaani rahim sadaqallahu al azim wa ballagha rasuluhu nabiyil mustafa al karim wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min ash-shahidin allahumma arhamna bil qur'ani al karim wanfa'na bil ayati wa dhikri al hakim waj'alhu lana hujjatan yawma ddin allahumma anfa'na bima sarrafta fihi min al ayati wa dhakkirna bima darabta fihi min al masulat wa kaffir bi tilawatihi anna sayyi'at innaka mujibu ad-da'awat allahumma taqabbal minna khatma al qur'an وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على خير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو ضيق اللسان أو وقوف بخير وقت أو إدخال بخير مدخل أو إظهار بخير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا قدر من خلعه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من يوم الخفضة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعذنا به من الضيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآثالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا allahuma اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الدوح والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين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 wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ummati ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci bis bu tedd bi ci barab bu tedd bi di leen balu xaq di leen balu di ñaan suñu borom mu boole ñu baal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 Euh, taarix bi sëriñ Ahmadou dellusi si na ci dellu si gu mat sëkk euh, noonu rekk ci lañ doon barkeelu euh, bi ñu xëyee dajale nañ ñaar fukki kaang ak juróom-ñett ci barab bi ak li ko wër ñu jàng kenn ku nekk wàccee ab kaamil moom la sëriñ Moustapha am sëriñ Mahmoudane xat mu léegi nii lool it tabarrukan ca na nga xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha daan na ko def di ko defloo euh, way juróom wa Cheikh sàmba euh, su noppi woon it daan dajale mbooloo mi di leen soññ ak fàttali loolu it suñ borom def def ci tawfiq mu daan ko defee defiin woo xam ne wa gënoon a déggoo ak jamonoom la ndax ku ne xam na ne jamono booba euh, communication ubbi koogut nii te jokkaloo ci boppam muy li jiitu ci jokkaloo muy dem yombutoon daanaka waxtu wu nekk ci bis bii rek ci la daan am occasion dajeeg li ëpp ci kilifa yu murit yi mu daan ci bind ab discours bind ga bari njariñ lool ndax kilifa yi daan ñëw ku dikkoon da nga muññandiku ba sotti lu ko door ko yóbbaale soo delloo ci biir réew mi kilifa yemuntoon a ñëw dañuy yebal ay ndaw ñu di ñu sottil leen ko ñu di ko jottali eh, loolu di tawféex gu rëy mu dox ba nëgë ni soo ko tiimaatee day mel ne waxtu wi moo taxoon ñu di ko bind loolu tawféex gi mooy lim ko bindoon su fekkoon lu mu doon wax rek la ñu di ko nettali kon bu dikkaatee nettalewaat ko na mu ko waxe woon dana jafe ci xitaab yooyu nga xam ne nag Cheikh Mouhamadul Moustapha daan na ko def ci lañ tànn benn tey bëgg ca barkeelu jéem ca fàttali suñu bopp jéem ca fàttalanteeg mbokk yi xëy na dañ ci indi ubbiku gi rek ni mu ko tënke ci arab waaye jàllale ko ci wolof ngir waxtu wi kon dafa wax ne auzu billah bismillah inna waliyallah alhamdulillahi allasi bi nicmatihi wa jalalatihi tatimu saalihat wasalaatu wasalaamu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ulil masiyaat amma baadu fa inni uwajjihu ilaykum ayuha al ixwaan annaasiluuna fi hasi al adrati fi hasi al adra fi hasi al buqaati allati lam yuqsad bil ijtimaaci fiha fi hasi al ayaam illa li ibtiqaai wajhi rabb al ala bitawbati nasuux wal iqbaali ila llahi taala bi tilaawati kitaabi al aziz wal ittiaasi bil mawcisati al xasana wal ictibaar fi afxaali alxaaliqi bi xalqihi wa tafakkuri fi ayaatihi wa duaai li ixyaai almuslimina wa amwaatihim imtisaalan li amri rabbi taala yaa ayuha allasina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha xasee rabbukum an yukaffira ankum sayiaatikum wa yudxilakum jannatin tajri min taxtiha al anhar ila axiri al ayat Cheikh Mouhamadul Moustapha bi muy ubbiku ci wax ji mu jiital muslu ci seytaane teg ci turu yàlla dellu ci suñu boroom sant ko ci xewal yu rëy yi nga xam ne mi ngi koy defal jaamam ñi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak àndandoom yi nga xam ne lu baax lu nekk ñoo ci jiitu bi loolu jàllee mu wax ne yéen mbooloo mi wàcc si ci barab bii muy ñëw ci tuubaaku tedd gii ci bis bii nga xam ne mooy bëccëg gu mel ni kii ñu nekk fukk ak juróom-ñett ci weeru muharram mu ne te dara taxul ñu sàkku ngeen teew si fi dara taxul leen fee teew si lu dul jëmmi yàlla tabaraka wa taala boole kook tuub gu sell ànd ak dellu ci suñu borom dellu gu wér te jaare ko ci jàng alquran waaru ci eh, waare yi nga xam ne ñu ngi ko fi def gën a yéemu ci jëfi suñu borom tabaraka wa taala ci jaam ñi di xalaat ci kiimaanam yi tey ñaanal jullit yi ñiy dund ak ñi faatu mu ne te loolu dañ ko def sukkandiku ko ci ay alxuraan ci suñu borom wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a ngeen a gëm yàlla de leen tuub di dellu ci seen borom tuub gu sell ndax lee suñu borom tabaraka wa taala faral leen seeni ñaawteef tabbal leen aljanna mu tegat ca beneen aaya boo xam ne suñu borom tabaaraka taala day wax ne ñi nga xam ne dañuy jàng alquran di julli di dimbalee ca la leen yàlla wërsëgale ci biir ak ci biti ñooñu day ñi ngi def euh, njaay mu tonawu mooy commerce bu am bénéfice buy def loolu kon ëllëg dana am bénéfice ca boroomam naka noonu mu ne suñu borom tabaaraka wa taala wax na ci alquran ne euh, dee woote jëme ci seen borom waaye di ko def ci xikk ma ak waaraate bu rafet bu sell ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al asana mu ne suñ borom wax na ci alquran ne fa'tabiru yaa ulil absar yéen ñi nga xam ne am ngeen ay xel dee leen xalaat ci li weesu neen suñ borom wax na ne dee leen ma ñaan ma di leen may su ngeen ma ñaanee ma may leen kon mu ne lii bokk na ci li tax ma woo leen fi mu teg ci ne ñu ngi sant suñu borom bu baax nag ci mboolem xeeti cant yépp yoo xam ne eh, ab jaam dana ko sant jëme ko ci boromam dolli ci nag yow suñu borom ñi ngi lay seedeel tuub gu dëggu gu sell gu rëy gu bàyyikoo ci ñun ci mbooleem bakkaar yu mag yi ak bakkaar yu ndaw yi di la tuubal tuubiinu jaam boo xam ne xam na ne mënalul boppam dara moomul ci boppam dara doonul ci boppam dara du dund du dee du yëngatu du dal lépp xam na ne boroomam gannaaw tuub googu yi mu ne suñ borom ñi ngi tàllal nag suñuy loxo di la ñaan tey yaakaar ci sa géej gi tedd nga yi nga dëppale ñu ak njub nga dëppale ñu ak njub kon lu mu doon ñaan ak njub loolu it siiwee woon na ko loolu nag luñ ciy dollil mooy lim daan wax ne kenn gënuma bàyyi waaye juba ma doy waaye ko gis ubbiku gii mu ubbiku tam xiit ci suñ borom ba àggal tàllal ko loxo ñaan loo koy ñaan ak njub kon lu mat a bàyyi xel la jële ñaan ak njub eh, naka noonu di ko ne ko suñ borom ñu ngi lay ñaan it nga teg ñu ci siraatal mustaqim ñu bañ a génn mukk sëb sag na mel te nga sotti ci kaw ci suñu kaw say xéewal ak ci suñu biir lépp ci àddina ak ci àllaaxira dal jëpp nag ci wéyal dénkaane bi wax na yéen mbooloo mi na ngeen xam ne dangeen a nekk ci diggante digle ak tere dige ak tëkkoo digle ak tere dige ak tëkkoo kon ku nekk ci diggante digle ak tere dige ak tëkkoo da ko war a bàyyi xel bu baax xam ne saa bu jëfee liñ ko digal dana jot ci liñ ko dikk saa bu nekkee ca lañ ko tere it waliyaasu billah lañ ko dëkkoor nga nga ne di ko nekk mu ne kon na ngeen xam ne ci diggante boobu yi ngeen ne te xam ne àddina ab jaarukaay la waaye alaaxira mooy saxuwaay ba mu tegaat ci ne maa ngi leen di dénk ngeen di jëfal àddina lu tal ne li ngeen fii nekk àddina na koy jëfal lu tal ne li ngeen fi ne lu mat a dégg la te mat a bàyyi xel ndax kuy jeex ne ci luy jeex te bëgg faawul lu dul jeex xel nanguwu kon defal leen àddina lu toll ne li ngeen fii sax defal àllaaxira lu toll ne la ngeen fa nar a desi te àllaaxira amutub yamukaay kon la ngeen koy wutal bu mu amub yamukaay day leen defal seen borom lu toll ne li ngeen koy soxlaal te yàlla jaan ñi ñu ngi koy soxla ci lépp kon kenn du jóg ci moom wax ne suñu borom tabaaraka wa taala dafa wax ci alquran ne yéen nit ñi yéen a ñàkk yéen a néew doole yéen a aajowoo seen boroom seen boroom moom mu nga xam ne alxani alxaniyul xamid moo am lu ko doy sëkk tadib santaakon mu wax ne maa ngi leen di dénk ngeen di waajal bis ngeen di waajal bis penc di ko fàttaliku te di ko bàyyi xel te bañ a wooru ci àddina mu ne na ngeen xalaat ci àddina ak ni mu bindoo xool leen ñi leen fi jiitu woon nga xam ne yéen da ngeen ñëw dégg ñu ne am ñu fi masoon a ñëw ngeen dégg seeni tur waaye xalaat leen ci ñi ngeen fi nekkaloon te jiitu ji leen ñaar ñooñu kumu ci muy ñi leen jiitu woon jëkk ngeen di ñëw ak ñi ngeen fi nekkandooloon te jiitu ji leen mu ne kumu ci ñooñu am na ci ñoo xam ne ñoo fi tabax tabax yu rëy yi ngeen fi gis ñoo fi tabax njëndi yu rëy yi ñoo dëkke woon pale yi tey ñi ngi ci biir bàmmeel ne cell daanaka kenn waxatul ba tudd leen daanaka kenn siyaare jeetu leen lu des wa wajadu ma amilu aadiram suñ borom nee na ku ñëw ca yàlla da nga fekk la nga fa jëfoon mu ne ñum teew dara du ca jóg Cheikh Mouhamadoul Moustapha kon ne ñoo ñuy ngeen xamoon tañ jëfoon fi jëf yu rëy yooyu yi te tey ñu ne lew ci seen i pax daanaka nit ñi waxatuñ ba tudd leen daanaka ñu néewee jàdd ca ñoom leen siyaare ji tey day ña ca seen biir i pax ñook seen jëf yàlla na fekk mu rafet mu ne ñooñu day ñoom bu dee ci àddina rek seen yaakaar fàddu na ci xanaa kon dara deseetul lu dul yaakaar seen yërmandey borom yàlla leen ko yàlla defal euh, mu ne nangeen xam ne suñu borom tabaraka wa taala mooy bégle mooy sànjal wa adhak wa abka wa annahu wa amaata wa ahya mooy dundal mooy rey lu neex mooma lu naqari mooma yàlla lépp mooma te dara rëyut ci moom mu ne yàlla wax na ci alquran di wax yonente bi sallallahu alayhi wa di ko nettali ëllëg yowmal qiyaam euh, yéefar yi su ñuy gis seen mbugal euh, bañ war leen caa jël jëmee ci njàqare la nga xam ne danañ ko am euh, diggante boo xam ne saa bu kii woo ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ab safaan ñu war leen a jël yóbbu leen ca seenu pay nañuy tiite nee na loola ku ko bàyyi xel danga xam ne àddina amul solo te kon la ma tey jëfal mooy ëllëg di yowmal xiyaam suñ borom dafay wax ci masaahida yowmal xiyaam mu yowmal xiyaam ak yi ci aju di wax ne danga fa gis ci ay njàqare loo xam ne nit ñi danañ àgg ci dootuñ ko mën a dégg bay ganar ganar yi mel ne ku màndi te fekk màndiwuñ waaye mbugal mi moo rëy moo ëpp seenum xel àgg na ci di wax ne ëllëg suñu borom tabaraka wa taala dana bu mbooloo mi buñ attee te jëf ya walxiyaasu billah ñu bari sawara yay leen ba ñuy dugg dana laaj dugg ba dugg ba bari suñu boroom laaj sawara ndax fees nga mu naan ko ndax amoo ndolleen Cheikh Mouhamadul Moustapha ne suñu boroom mi ngi fàttali ci alxuraan ne nit nay bàyyi xel ci ay jëfam te xam ne ëllëg yowmal xiyaam suñ dee kiiraay la jëf yu baax rek dafa doon am njariñ koo xam ne nag bi nga nekkee ci àddina sa bakkan dalaa gañe nga toppoon àddina fàtte woon sa borom mbaa taloo ko woon fa innal jahima hiya al mawa wal iyaasu billah gaaraas bu mooy jahim rek mu yemut ci ne sawara mooy tàppukaayam waaye suñu borom ci boppam moo wax joxe tuuti ay melokaan ci sawara innaha saat mustaqarran wa muqama suñu borom bi mu tuddee sawara daf ne ndaw see ndaw see suur bu naqari ndaw dalukaay bu naqari ndaw barab bu doy waar ba tey suñu borom ci alquran ma ngay melal ña fa nekk yuuxu ya ñuy yuuxu di xaaju naan yàlla jëlee ñu fii yóbbuwaat ñu àddina kon day lañ defoon ba ñëw fii dootuñu ko def mukk hay loolu fàtt na eh, bi mu jógee ci loolu wax melal ñi nga xam ne ñoo ne ci sawara ci ayat alquran yi suñu boroom it ma ngay wax ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata yal mawa waaye koo xam ne bàyyi woon na xel àddina bi mu nekkee ci àddina bàyyi woon na xel boroomam euh, tàggat bakkanam dox digganteem ak bànneexam ne ci ndigal yi di wattandiku tere yi moomit it fa innal jannata hiya al mawa euh, tappukaay ba barab ba mooy aljanna nam waxoon ca sawara mu defaat ko ne wa asunat mustaqarran wa muqama bi ne kooku barabam mooy aljanna daf ne ndaw séesuur bu neex aljanna ndaw dalukaay bu dal ca lay waxee nag wa fiiha ma tastahil anfus mooy fi nga xam ne ku fa xis dugg xemmemteef day jeex lépp loo bëgg day mel ne bouton buñ lëkkaleeg sam xel loo bëgg sa borom defale la ko noona suñ borom moom it nam melale woon ca sawar ak mettiwaay ba mu melale ko mu melale ci dara ci aljanna ak euh, neexaay ba cheikh mouhamadul moustapha wax ne fajtahidu fi imtisaalil awamiri wa daariku xabla la na ngeen farlu ci topp ndigal yi te gaaw ci bala moo raw te gaaw ci bala moo raw ndax lu nit di wax kat ak def daa fekk ngay dund daa fekk nga wér waaye ku amuk dund sànq ko ci leneen ba dee dikk bu dee dikkee du xaaralaate ku amuk wér sànq ko ci leneen ba wéri di ñëw mën ngaa yéene waaye dootoo man Cheikh mu Moussa wax ne bi ngeen di dund te góor góorlu leen ci jëfe yi te góor góorlu ci wattandiku tere yi balaa muy weesu te bu leen naagu ci yërmande yàlla te xam ne yàlla moom ab jéggale akoon la bu lewet bu am yërmande te yërmandeem sax mu làmb lépp te lam wax mooy man jaa bil hasanati fa lahu asru amsaaliha wa man jaa bi sayyiati fa laa yujzaa illaa mislaha nee na yàlla ku neex a jëflanteel la ndax koo xam ne soo defee benn bu baax mu dolli la ci yeneen juróom-ñeent muy fukk mu dencal la ba nga ñëw mu jox la ko soo rëccee ba def ab safaan mu ne tekk di la déglu soo ko tuubee mu jéggal la ko soo ko tuubut mu téyal la ko fanoona du la ca dollil dara kon warees naa mën a góorgóorlu ba Euh, wattandi say benn benn ëpp say fukk-fukk kon ñu bàyyi xel ci loolu baax mu teg ci it wax ci suñu diggante ne innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum suñ borom tabaraka wa taala wax ni jullit yépp ay bokk lañu loolu moom jëfi yàlla lu mu leen ci sant fa aslihu bayna axawaykum góor leen ci seen diggante yéwénal ko defar ko kenn ku nekk lu mu yéene boppam mu yéene ko moroomam lu mu bañal boppam mu wattandikul ko moroomam te lu ci ragal yàlla te wattandiku noono ak bañante ak ay kompaloo ak a tàbbi ci lu dul noona te amu bim bàyyi ci wàll googu it mu yeesalaat dénkaane ba ne maa ngi leen di dénkit ñi leen yàlla booleel ci jamono ñuy seen kilifa yi àddina ngeen am ak ñoom maslaa wax ne ndax ñoom kat ñoo yor doole àddina ji te ñi ngi jàppalanteek ñun ci suñ mbirum àddina te yàqaluñ ñu ci suñu diine kon nag yéen it na ngeen jàppalanteeg ñoom dellu ca aaya ba suñu borom wax ne yàlla terewu leen ngeen eh, jëflanteek ñi nga xam ne gàllankooruñ leen ci seen diine gàllankooruñ leen ci seen àddina te ngeen maandu ndax yàlla dafa bëgg ku maandu euh, muy discours bu am solo boo xam ne li mu ci tënk benn aaya boo ci jëloon rek wala xadis yi wala wax ji ci biir benn bu ci nekk doyoon na sëkk ak soññee aku fàttali mu fàttali ñu ko xamal ne àddina ab jaarukaay la waaye ëllëg àllaaxira mooy kër ga kon ñu bokk bàyyi ko xel bu baax a baax yàlla na yàlla dimbale ba nii munu ko digale ñu jëfe ko nii te lam ci bëggoon ba tax mu koy digle suñ borom defal ñu ko ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf mbokk yi ni doon topp kon ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci bis bu màgg muy bis bu Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké defaloon Cheikhul Khadim te mooy bis bi ñu ko jëlee Njaareem andi ko Touba bis boobu sëriñ bi di ko màggal. dégg ngeen ci biir waxtaan wi li nga xamee ne que noonu la Serigne Modou Moustapha Mbacké waxoon ne nañ koy defee noonu waaye xam ngeen ne joxoon na ndigal bàyyi taxam bu baax ba di ma Massamba Mbacké liggéey ba am solo nekk woon kat bés bi bu dikkee na nga digal jànkate alxuraan yi ñu jàng fukki kaamil ak ñeent fukki kaamil ak ñaar ci mihrab bi waaye ci barabu Serigne Touba bi nga xam ne moo tax ñu def bés bi nañ fa jàng fukki kaamil ak ñaar digalit ñeenti kaamil ñu jàng ko ci biir jumaa ji loolu boo ko daf lay jox ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett te mooy limu xaru fi Touba Cheikh Moustapha digle woon ko noonu mu ne woon ma sàmba nañu dàkk ñeenti koñu jumaa ji koñ bu nekk jàng ci genn xasida ci xasida yi nga xam ne Serigne bi daf ko doon tàgg sallallahu wa sallam lu mel ne jës bul xulóob waaye bu naafi muqaddimatul amda ak mimiya mu nekk ñeenti mu nekk ñeenti xasida yoo xam ne Serigne bi daa nañ koy jàng ci bis bi waaye loolu yëpp itam terewul ñi nga xam ne màggal si nañ te mënuñoo jàng xasida mënuñoo jàng alquran sëriñ bi bañ ñu toog loxoy neen mu ne nañuy def astaghfirullah nañuy jàng sikar nañuy sikar nañuy saraxe lépp lu baax loo xam ne am na yiw mën naa jëriñ ab jullit sëñ Mourou Moussa ne nañ ca nekk noonu yi nag mu ko digloo noonu lañ ko defe woon noonu lañ ko defaat ci kanamu sëriñ Massamba lañ ko daan defee te ji sëriñ euh, Moustapha Mbacké mu sëriñ Mahmoudan moo xat bu kaamil bi mbokk yi ko nu ànd ak yéen noonu lañ fas yéene dundale guddi gi ndax guddi la goo xam ne guddi gu màgg la guddi gu barkeel la guddi gu tedd la guddi fajkatu aajo la yàlla sa borom yàlla dafa ñu tawfeex ju ànd ak tay siir mbokk yi nii lañ fas yéene ànd lépp loo xam ne mi ngi bàyyi ko fii ci Touba ci bis ki ci taxawaay Cheikh Mouhamadou Moustapha ak ak njabootam daañu leen ko jot la en direct ba ngeen mën ko am ci biir réew mi ak ci bitim réew wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ci ngeen jégal noo ngi ànd ak nag Serigne Saliou sunu caméraman ànd ak bokki taali bi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi jàpp ci biir liggéey bi kon mbokk mi nga dig daje ci yeneen jotaay ci biir ak bés bi ñuy fàttali ko Seexul Xadim di ko ci màggal kay tàll suñu loxo suñu borom nag di ñaan ci barkeb Seexul Xadim sans borom yàlla fajal ñu jëpp ay aajo ci barkeb Serigne Touba Xaadimu Rasuul wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëfati Serigne Touba